وجهت وجهي لمن تكريمه بانا في شهر مولد من في البحر ربانا لله شكري في شهر ربينا على ابتداء الذي اختار قربانا قد أقبل الخير ممن لا شريك له في الملك والحمد إسرارا وإعلانا دعوت برا رئيس مني مكرمنا في البر والبحر نعم الله مولانا كون بكل يا في اليوم توسعة حتى يقيم لدين الله أركانا ربيتني فالتاف للعام يا سمدي إدمان خير وإسعادا وإسكانا ربيتني بعديت عامل وتربية عن يوم تربية إذ جعت صديانا مكنتني بعد ضيق سقت لي عللا موسع بعد ما الحديق طغيانا ناجيتك اليوم يا من أمسك رمني وسقط لليوم إيخانا وبرهانا اشرب قلوب النصارى يا خدير إلى نصري ورد لي من قد عز أوهانا بكونك الواحد القهار منفردا لقردانا حلال بشراي إدمانا نبهتني أمس تم بأن أرى عجبا أنت ñëw rek tey jii ci bis bi nga xamante ni mooy bisu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Falilou ñu ñëw tey fii ci kër jëriñ Serigne Khadim Gueye ànd ak dongo yi ànd ak waa daara ji ñu ñëw fii tey fas yéene wàccee alxuraan comme ni ko Serigne Khadim bëggee Serigne Khadim nag. dama leen di wax xaadim gi bëgg alxuraan man laa koy dañ koy wax jëwriñ xaadim gi ma wax jëwriñ xaadim gi bëgg alxuraanu karim ndax xaadim gi yemale woon alxuraan ak lenn moom jàpp na ni lim bu lim bu lim alxuraan am rek jàpp na ni alaaji baar la ko yéene jàpp na ni moom alxuraan lim buñ ci am lu mu rëy rëy rek jàpp na ni alaaji baar lañ ko war a jox jàpp nañ sëñ Fall lañ ko jàpp nañ jabootu sëñ Fall lañ ko jox jàpp nañ jabootu borom Tuubaa lañ ko war a jox moom sëñ xaadim gi noonu lay doxee di ko bëgg alxuraan bëgg alxuraan mënee su koo sax nat gis nga bis bii nga gis nii laata mu yegg si nii ñëw fii nun tey jàng nañ ab limu kaamil boo xamante egg na ci jëy sunu yoo xamante bi jàng nañ ko mu teg ko ci loxo sëñ Abdou Samad Mbàkke ñu jàng ko tey ñëwaat fii tey mu xamal ñu daara ji dama bëgg dongo yi ñëwaat salaat seen yéene fii ñu ñëwaat nii tey di fësalaat suñu yéene fii tey kon kooku wax dëgg yàlla moom pas-pasam ci Serigne Touba pas-pasam Serigne Fall pas-pasam ci alaaj Baara kenn mënu koo natt kon daal jëwriñ Xaadim moom nit la koo xam maanaam kenn mënu natt ay mbiram xanaa di ko yàlla rek suñu borom lu nga xam ne moo yor ay xéewal yor ay tawféex mu defal koy tawféex bu baax a baax shukri li rabbil kaana shakaran wa artaji min fi daarayni abkaran أردت شكرا له ما قد رجعت به كوني سعيدا وشكارا وذكارا وجعت وجهي في سحر النبي سندي للأكرم الرافع وبشكارا di wax ne Cheikh Amadou Lamine Bara mooy sët bi njëkk a wuutu Serigne Touba loolu rek doy na sëkk di koo xam ne ba mu fi nekk itam dana li fi nekk lépp dong yoo ko fi def kii ñu nekk këram nag ku fi ñëw rek xam ne mi ngi dundal màggal gi allié waaye di ñaanal xalifaam Cheikh Modou a ak njabootu Cheikh Modou leen baalal gépp léegi rek la fi rakam jógee Serigne Abdou Fata ñu ànd ak moom dem ziare Serigne Moustapha Serigne Moustapha nee na ko yow ñoo bokk bàyyi léegi rek loolu rek doy na sëkk sëñ Xaalim nag ni ko sëñ Mor waxee muy nit ku am yar ami teggin nit koo xam ne maanaam nit njariñ kese la di ku baax ku bëgg Cheikh Modou Lamine di ñaan nag bis bi mu yàgg ko def. Serigne Sidi bisimilah sa kaddu ci bis bi ak sëñ Xaadim ak taxawaayam ci bis bi ak ni mu mel ci kër Cheikh Mouhamad Lamine mu mel ni delloo na wattu ca ndaala. wallaay wallaay salaamaaleykum wa rahmatullah ñu sant yàlla jël ci jël bi alayhi salaatu wa salaam di santaat Cheikhul Khadim bu baax a baax a baax a baax di ñaanal baax Cheikh ma Lamine Baara Mbacke fëlilu suñu borom yokk ay maqaamam yokk ay ngërmam ca àjjana firdawsi yàggal fi lool xalifaam bu bi fi nekk muy Cheikh Moussa Karim moom si man la ñu di ko baax koo xamante ne waay bu del sóor du ndax macha allah li ko fi waay juróom bàyyi doo ko yokk waaye wàññiwu ko uuf uuf rakkam yi uuf jabar uuf taalibe yi ba kenn di sant bu baax nag ci lii ngeen bàyyi seen li ngeen def lépp def dressement ñëw ba fii ci kër Sëñ Xaadim bi Alaaji Baara nga xamante ne mooy jëruñ Sëñ Xaadim mooy jëruñ Sëñ Baara ci Ndakaaru waaye carver gépp boo xamante ni partout dans le monde foofa dem Sëñ Alaaji Baara am fay taalibe Sëñ Xaadim bi mooy si kilifa moom la yàlla dogal kon nag ñu ngi sant baax baax ñoo ngeen ne ci bisam bi nga xamante ni amul lu dul moom muy muy màggal Sëñ Baara Xaadim benn bët la am Sëñ Baara la ko xool Sëñ Baara lay waajee moom loo ko wax lu sëñ Baara gëmu ko sëñ Baara boo ci boo ci waxee tuuti rek lu yàgg rek mu jur ay xéwalam lii ñu def fii bañ avant ñuy ñëw def nañ ko ca Ndakaaru ca parking ba def ay xar def ay lakk def ay misui lépp ngir sante ko sëñ Baara def ay fruits boissons yi dara manqué wu macha allah mu ànd koog njaboot gi ànd koog soxna yi ànd koog taalibe yi ànd koog nag soxnaam su mbaax si soxna soxna Badiane Badiane sa kuréel waali toppatoo lépp bernde yi macha allah dara manqué wul macha allah loo xamante ni tubarkal loolu ku nekk ab taalibe fa sa kër sëriñ nekk loolu possible nga ko war a wane waaye am njàmbaar nga fa war a wane waaye ak ràññik nga fa war a wane li gën a bon ci taalibe bokk ci sa bokk ci kër sa sëriñ xamula kenn xamula fa loolu doonul sëñ Xaadim Gueye Xaadim Gueye ba fi sëñ Baara nekkee la muy doon def sëñ Baara ba fi ba fi sëñ tey la ko gën a mën a jëf ci njaboot gi te saa su nekk boo ñëwee parkinam di nga gis koo xamante ne ci deretu Alaaji Baara la bu nekk ci parkinam muy waxtu boo fa ñëw muy guddi ak bëccëg saa boo fa ñëw di nga fa gis koo xamante ni léeg-léeg leen di kii ci deretu Alaaji Baara la ñu ngi sant bu baax si internet yi nga xamante ni bàyyi leen ñëw waaw ku ci mel ne Tawfekh Production macha ñëw ci bis bi lépp loo xamante ni xew na fi ci kër Serigne Khadim gi Alaaji Baara ñu jël ko waaye nag duñ baay te sant ñu kan soxna Soore Badiane Badiane Sakkour waaye xam mooy soxna Khadim foo fekk góor gu baax rek gis nga fa soxna su baax ci wetam moo tax day berne yi ngay gis fi yëpp lépp so soxna soxna la moo toppatoo seen xaadim moo jàppale seen xaadim moo yiir seen xaadim lépp lu seen xaadim bëgg soxna soxna nga ca lépp lu mu bëgg rek ma nga ca bu dee ësta rek soxna soxna juum nekk bàyyi faalu seen xaadim gi nekk yaay faalam di jàpp ci liggéey bi macha allah ñu koy ñaanal baax yàlla dafa ko jàmm ak soxnaam yëpp bàyyiwun kenn Lat Joor bañ ko laajee ne ko yaag tubaab bi lu ngeen séeq mu ne ko yaag Serigne Khadim léegi tey ñu defi at juróomi at moom foo ko def du benn fan te avant loolu xamoon naa ko bu baax ndax man ci keppaaru Serigne bi laa waaye ci bëgg Serigne Baara ci laa ko xam ci fonk Serigne Baara ci laa ko xam lépp loo xamante ne nii am na ko Serigne Baara la ko dippee ba ci dakaar fa ñu nekk ba ci pari këram gi mu am Baara Falilou la ko tuddee kon loolu cër la ñun dongo yi nag duñu def lu may ñaanal ko ndax nit ki loo xam ne yow yaa ko waroon a def boo amee ku la ko defal loo sant doyut fondation bi nga xamante ne moom la ñu am muy fondation Cheikh Mawlana Bara defal nañu ci jëf ju màgg. waaye boppam la ko defal ndax it ñun yéene ji rek lañ am ba bokki dong yëpp ñu bokkook ñoom ñu di ko jëmmal ca kër Serigne Baara mu yëkkati aw nag jox ñu ko sànq rek la ko fi mbokki taalibe yi jël see muy galas bay ak àlla ak Serigne Khadim mii di ah, duñ def lu may nag di jaajëfalaat ñëpp rek di santaat Serigne Baara Falilu xam ne ñun lu ñu mën a mel rek moom la. di nuyu tamit waa Tawfeex tamit wax dëgg yàlla. ku ne xam na leen ci événement ba ci bërki démboo Ndiaye rek ku seetaan journée culturelle Cheikh Mouhamad Lamine Bara Mbacké borom kàddu gi di nga leen fa gis ak journée culturelle Cheikh Issa bi ñoom it ñi ngi fa woon. sëñ Xaadim Gueye dina yomba wax ndax Ahmadou Bamba xaadimul xaddim xayrul xaddim borom jàkkay géej gi kooku lañ ko tuddee kooku nag wax ci moom du jafe ndax bu ñëwee la sëñ Touba lañ la tuddee ngay jëf jëfi sëñ Touba kooku dina yomba wax. ndax moom tettal bi wuutu na boppam ba pare sëñ Xaadim Gueye nag doon na koo xamante si nii ku am engagement la parce que nit yaakaar naa ni ñaar ñii koo ku ci man moo la man koo xam ci ni moo la gën a tawee booy xeex moom bu la bu jekkoo def la ko waaw waaye nag moom ku ko xam ne ab tab la ndax lii muy defal sëriñ sëriñam bu baax bii di sëriñ Alaaji Baara yaakaar naa ni defee na ko fépp ci réew mi ak fépp fi ndakaaru ba ci képp ku tànt sa tànt mu jël addiyaam moo xam muy nagam moo xam muy alalam jox la ko te alaaji baara rek tax kooku kon mi ngi dindal ndone li fi mag ñi bàyyi woon waaye nag lu baax rek lay mën a am ndax uh, waajuram wi ko meññi nettali nañ ci waajuram wi ko meññi da daan yar xar mu baax dem jébbal ko ki fi nekk Serigne Touba Seexul Xaddim kon nag tey moom bu defee lii tey def na li ko war ndax waajuram yii di alaaji baara mi nga xam te ni tey ku ne xam na ko ci réew mi sëñ Xaadim Gueye kon mënuñu ludul rek di ko ndokkeel ci bis bi di ko fi mu ne nii ñu baax ñëpp seen xel yëpp fii lañ jëm si. man ko alaaji baara mag ñee ko njëkk a junju ndax Cheikh Moussa Ka dañuy baara man nañ ko bàyyi xel waaye sëñ Fall nañ ko bàyyi xel ndax raayu ngëneel waa nga Touba sët ba yor na ko tey alaaji Fallilu mooy xalifa billaahi kon tey bu bu alaaji bu sëñ Fallu nekkee xalifa sëñ Touba alaaji baara ñëw nag sët bi njëkk a nekk xalif sëñ mooy la la Cheikh Moussa ko waxoon ca way muy raayu ngëneel waa nga Touba sët ba yor na ko tey alaaji fàllilu mooy xalifa bi laay sët ba nag sët nag moo jëra li jënt fajaatani rabbi bil alali abliyan عاد للبر رذلي كل من بارا على النبي صل بالتسليم بالكرماء ورفع اليوم وارفع وزدني بعد الرفع أبكارا على النبي صلِّ bi tasliimi bil kurama warfa wa zidni ba'da rafi abkara ala nabi salli bi tasliimi bil kurama warfa wa zidni ba'da rafi abkara fii ci kër sëñ Xaadim Gueye Alaaji Baara ñu jàkkaarloog suñu mag suñu xarit muy sëriñ Mor Aan sëñ Mor Aan ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziyaare ci bis bi. Euh, asalaamaaleykum euh, mbooloo mi ñu leen di siyaare euh, di sant yàlla di julli ci yonent bi salallaahu alayhi wa salaam di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha mu yàgg fi lool te wér di ñaanal sëñ Abo mu Cheikh Mouhamadou Fadal mu yàgg fi loolu te wér. waaye noonu la ñuy ñaanale suñu sëriñ sëriñ Moustapha Mbacke mu sëñ Alaaji Baara mu yàgg fi loolu te wér ah, di kontaan rek ci micro bi ngeen ma dénk ak fi ngeen ma ko dénke ci sama xarit di sama doomu ndey di doomu xol bu sëriñ Alaaji Baara Fàllilu di sëriñ Xaadim Géey macha allah di ko ñaan yàlla na ko yàlla lafal cat ba yéene mu yéene sëriñ Fallilou yéene ko Serigne Moustapha mu àggale ko ndax euh, daara ju mel nii ku ko def fii ci aliya kon sëñ bi ñor na ko am rek jox na ko sëñ Fallou delloowaat na ko sëñ Alaaji Baara kon nag suñ xol sedd na guy ci moom di ñaanal itam mbooloo mu fi ñëw ak ñi nekk ci yoonu di ñëw yàlla na leen yàlla indi ci jàmm te yóbbuwaat leen ci jàmm euh, sëñ day nit ku baax di nit ku am njariñ te doomu aadama dafa war a am njariñ boo ko fekkee dakaar macha allah gaa yëpp ku ci dem ba bëcëg ba deux foo mën a nekk sa xel palaasam rek lay nekk boo demee da nga jëfandiku ba doyal lim yor itam mi ngi koy bokk ak jaam ñi di ko ñaanal bu baax di ñaanal soxnaam Soda Badiane suñ borom musal ko ci cat musal ko ci ndog ak soxnaam yëpp ak rakkam yi di ñaanal suñ waajur wi ci biir ndax luñ am rek ak luñ man rek moo ma ñu ngi koy ñaanal suñ borom bàyyi ko fi bàyyi fi jullit yëpp ci barke Cheikh Mouhamed Lamine Bara suñ xol dafa sedd ci moom ba mënuñ ci moom seere ndax dañ koo jege. ndax fii ngeen nu fekk tey jëmm ju baax ji sëriñ Xaadim bi alaaj Baara wax naa ko léegi muy doomu xolu sëriñ Baara Faddilu ci suba ba léegi kilifa yaa ngi ñëw kilifa yaa ngi ñëw. dàq nañu xar yi giléem yi nag yi lépp ñëw na ñu ngi jàng xasida yi boobu ba léegi ñu ngi bernde kenn mënta dugg aaliya te sa xel du dem ci sëñ Xaadim Gueye kenn mënta dugg aaliya te sa xel du dem ci sëñ Xaadim Gueye moom nag li ko sëriñ Baara Fàllu defal lépp delloo na ko sëñ Baara ak njabootam waxuma la bis bi waaye moom ba weer wi teroo la commencé màggal barki démb lañ def avant première wi ca parking mu rey ay gàtt woo jànkatu xasida yi woo jànkatu xasida yi ñëpp jàng mu teral leen ñu jàng alxuraan te sëñ Amet bis bi li ci li ci xew ren dafa yéeme ren dañ cee wàcce matériel bu bees ndax rajo yii ñuy jànge sonorisation bii ñuy jàngee ñoo ko moom moom moo ko moom ren la ko wàcce waaw ko moom waaw damaa ñëw léegi ni ko rajo yi dafa neex te lépp a ngi ñëw Sëñ Xaadim ngay nit ku baax la nit ku mën a rafetal nit koo xam ne du bodd kenn du sànni kenn du jànni kenn barki Seexul Xaadim ku ñëw mu téye xajoo ñëpp xajoo ñëpp boo ko fekkee palaasam li gën a yéeme mooy mook taalibe ñooy añandoo barki Seexul Xaadim billaahi xéewal gi bu ñëwee te ñëwul sax danaan bu leen ma xaar xéewlu leen li sëriñ baara Bara defal delloo nga ko njabootam delloo nga ko taalibe yi kon bu ngeen defee nii ñëw ci bis bi ñoo ngi ñaan suñu borom defal leen tawféex guddal seen fan may leen wér ci barkeb Sëñ Touba. Serigne Khadim Gueye Alaaji Baara waaye nag ki ñu bëgg a jox kàddu gi muy koo xam ci jànkat bu ñépp xam turam rek mel na ni ñëpp xam na muy sëriñ maxtaar Gueye ñu gën ko xam ci turu Salim. tur woowu nag turu cosaan la nag. waaw sëñ Salim maa ngi lay nuyu bu baax. <laughs> Eh, sëñ Mohamed maa ngi lay fay di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Eh, sadid lisaani nawir janaani safi amaani wasid baraay sëñ Mohamed maa ngi lay fay bu baax ci sa taxawaay sa sa liggéey bu rafet ak sa pësteef bi ma xamee mu yàgg lool waaye ma xam na ci Serigne Touba ak fulla ak fayda ak pësteef ak bëgg lu baax yaa yàlla defal la jàmm eh, am ñu mbégte bu baax comme ni ko sunu kilifa yi fi jaar waxee rek ñoom sëñ Mor sëñ Mandaak euh, ni ñu ko waxee rek muy kàddu yu rafet yoo xam ne sëñ Xaadim moom ni mu mel ci sëriñ Alaaji Baara day doomi xolam yaakaar naa bis bi dara manqué wul boobu ba léegi ca parkin bi la ko tàmbalee ca Ndakaaru ba fii tey dara jeexul dégg ngeen alxuraan ji dégg ngeen xaside yi ñi ngi ñaan ci barkeb sëñ Touba ñu yàgg koo def ñu yàgg ko ànd ak moom te sëriñ bi nangul ci barkeb sëñ Touba noonu daal lañ ko fas yéene defee alxuraan xasida bernde ndax suba la Kazu Rajab sëñ Alaaji Baar nag ba gi mu bëggoon sëñ Fallu moo tax sëñ Fallu taqale bisam taqale seen ñaari bisi te ma nga ca ma ma ca barab ba moog sëñ Mor Bousso ak magam ju baax ji ak sëñ Fallu loolu nag day wane ni bëgg ko bëggoon moo feeñaat fii rek sëñ Mouhamed may ma ñaari béy rek ndax ñu xam kii wa lil mustafa wajhatu maali qaada nafan bila madaratin fan qaada huwa shafiihu wa huwa sujaahu به مع زلمي والأوجاء محمد ذلا ليلى في الآل والصحب ومن والاه barke borom Touba ah kooku ngeen déggoon muy sëñ Salim kon euh, sëñ Abdou Ndiaye say kaddu sëñ Ahmed noo ngi lay siyaare bu baax di la ci bis bi di am contentement ak euh, mbegte bu baax ci teew ci bis bi ànd ko ak yéen nga xam ne fii nu teew day kër sëriñ mu sëriñ fallu ndax sëriñ xaadim géey ku ko xam xam ko ci bëgg sëriñ fallu xam ko ci bëgg baayam bu baax ba alaaji baara kon nag bis bii mu koy def di ci màggal sëriñ mu sëriñ fallu noo ngi ñaan yàlla na ko yàgg def te ànd kook mbooleem ñi mu koy àndal ñëpp barke seexul xaddim wax dëgg yàlla kàddu yi tënku woon na ndax ñi fi wax ñëpp liñ fi wax am na solo te daanaka jarul yokk ay kàddu ni ko sëñ Manaak waxee rek sëñ Maxtaar Gueye sunu xarit bu baax bii waxee rek lépp lu baax la te lu baax du doy kon nag noo ngi ñaan ci barki sëñ Tuubaa yàlla nañ fi teewaat ay at yu baree bare bare bare bëri wa inna la narju minkum alfatha wannasra laqad daaqa xaalu alwaqti washtadda amruhu fa farrij ilahi kurbana وادفع الضراء لقد ضاق حال الوقت واشتد أمره ففرج إلهي كربنا وادفع الضر لقد ضاق حال الوقت واشتد أمره ففرج إلهي كربنا وادفع الضراء وادفع الضراء وادفع الضراء وبارك لأهل الشيخ في الدين والدنا وأول انكسارا منهم سرمدا جبرا عليه مورد الرحمن في كل ساعة بمخدوم السامي أجل الورى قدرا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 yal na yàlla yokk ay leeram noo ngi fii ci kër sëñ Xadim Guèye yëkkati fi alquran yëkkati fi xasiid ak Sëriñ Tuubaa yi waaye xasiid gii ñuy doon jàng léegi nga xam ni Cheikh Mouhamadul Fadal moo ko moo ko taalifoon mu mel ni tey lañ ko gën a soxla xasiid gi li ci sëñ lu wax yal na nu yal na agsi ci jamono ji yal na yàlla nangu ñaan googee ndax soxla woon nañ ko ci waxtu wi ñuy ñaanal sëñ Xaadim Guèye yàlla gën koo kartanal gën koo dooleel ndax moom lu mu am sëñ Baara la koy dugalaat xam naa ni mbër ka la jàggi ruur waaye mook Alaaji Baara démb la woon mook Alaaji Baara démb la woon mu doon doomam waaye ku am kóllëre mooy sëñ Xaadim Guèye ndax tey li mu man ginnaaw alaaji baara la manoon ci kanamu sëñ baara mënu koo woon lii mu man tey mënu ko woon bi muy nekk ak sëñ baara waaye jàpp na ni moom tey lépp lu mu am sëñ baara moo tax lu mu am lu ne da koy joxaat sëñ baara tàmbalee ko ci ku sëñ baara am nag moo xam doomam la tàmbalee ci Cheikh Moustapha al Karim mii sëriñam mu def ko sëñ baara ak lépp lu aju ci sëñ baara ba ci taalibe yi sëñ baara yi ba képp ku mos a sopp sëñ baara ca mu ca muy dëgg nga xam ko sëñ xaadim Gueye bu la xamee teral na la kon yàlla na yàlla saxal ci loxoom ay teraanga man mii di wax ak yéen bi may dem mag ca mu yëg la ci alaaji baara doon lépp lu ma fa jëfandikoo ci màkk ma ma ko jox kon noo ngi koy ñaanal yàlla noo ngi koy ñaanal yàlla yàlla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 woote 77 251